salaamaaleykum waa Sénégal donc maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp dama am benn message bu ndaw boo xam dama koy jàllale. dafa am benn organisation bu ñuy wax Oxfam ñëw implanté wu Sénégal implanté wu ci dëkk yu bari te seen métier du dara ludul dul promouvoir affaire góor jigéen te ñun dañu am ay maam yoo xam ne dañu liggéeyal sëriñ Touba dafa xeex tubaab bi ci jox ñu liberté. de même que El Hadj Malick de même que Mame de même que Mame ñu nekk ci pays boo xam ni quatre-vingt-quinze pour cent des sénégalais ay musulmans lañu. su ñu yoree seen xaalis bu bari bu ñuy joxe pour bëgg a ñëw changer suñu culture ñun duñu ko nangu tey jii sénégalais boobu nga xam ne tey jii daf doon dafa nekkoon ci ñoom. ñu bëgg ko promouvoir loo yëfi góor jigéen mu bañ jaamu yàlla la ci am day am teraanga fi am teraanga fii ñu jëm parce que lu yàlla loo xam ni xaj man mos ba ma juddoo ba léegi mosuma gis ñaari xaj yu góor yu sëy musuma gis ñaari mbaam yu góor yuy sëy donc pour pourquoi nit war a mën a xalaat ni góor comme moom war na ko tiim mu nekk soxnaam góor war na toog ba ci àgg mu jékki-jékki changer sexe dem nekk góor comme jigéen mën na changer sexe nekk góor comme ñaari jigéen mën nañ sëy wala ñaari góor mën nañ sëy du ñu ko nangu te lépp loo xam ne nag lu koy promouvoir la Sénégal yëpp dañu war a jóg pour xeex ko tey ji maa ngi gis ay organisation comme aar li ñu bokk imam yi nekk dakaar nekk ci dëkk bi fii na ñëpp jóg taxaw organisation yi parce que lii ñu mbajum kanam borom moo koy fajal boppam. mën nañu xeex pour pétrole comme dañuy jóg ni diw jël na suñu xaalis dañ ko war a xeex nañu jóg ni tamit kenn d'accordul ci ñu bëgg a ñëw imposé ñu yëfi góor jigéen du ñu ko nangu wasalaam.